tay dañu jóg euh, en tant que d'abord euh, julit et aussi en tant que dom Sénégal dom Thiès di nga xamanteni mo dawl dawal dal suñu kaw ñu ñew set si leuré di nga xamanteni man fi ci Tiwaawan ci mom la jóg di Serigne mbey si Abdou ñu ñewé nak ci terre bu am solo waxtaan ak ñun vraiment dalal ñu. jox ko sunu njaal ci ki nga xamante ni tey moo fi jógee di une perte pour le Sénégal mais aussi di perte si monde entier ndax euh, taxawaay bi nga xamante ni am na ko si rapprochement yi nga xamante ni mu ngi koy def entre les confréries parce que ku xam Pape Malick si xam ko ni yombal na lool diggante Mourid ak Tidiane mais aussi yombal na lool ci diggante musulman ak chrétien donc tay mu nek lo xamanteni tay tey ñun ñëpp nañ ci mëna a amaat jàngat comme niko ko sunu bu Abdou ne nit ñi dañu wara defaraat jikko yi parce que dafa am solo parce que dañ nek ci monde bo xamanteni xawna jaxaso na jaxasoo lii ñu nekk yàlla boole ñu ko surtout diine ji ben la da nek murit wala nga nek tijaan wala nek khadra yon rek lañu jublu euh si si yonu yalla mais aussi dañu fi dañu nek un pays laïque bokk kok euh, de ay sunu yeneen mbokk diiné té lolu euh, sunu sëriñ yi dañ ci dox rôle bu am solo. ni euh monde entier moo perte Sénégal mo perte donc euh, mo taxo ñu ñëw ni dinañ vraiment joxé sunu njaal mais aussi wat sunu ziar si su kilifa yi mais également biñu joggé fi joxé joxe sunu njaal fële sa Thiénaba Euh, sunu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom aussi bi fi jógee donc euh, ñu ngi koy jaale waa askanu du cene Thiénaba yëpp mais aussi di ko jaale waa Thiès ndaxte ko xam euh, cene ba xam ne am na taxawaay bu am solo ci Thiès. jaale waa waa Thiès yëpp di koy jaale surtout le gouvernement du Sénégal. ñoom sax ñoom la ñu war a njëkkoon jaale sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi jóge ndaxte. taxaway bi nga xamante le président de la république le président Macky Sall am na ko këru diine yi parce que tey ku gis ni këru diine yi mel léegi nii donc je pense que ni da ciy jouer rôle bu am solo. rénové waat euh, seen foyer yi defaraat ko donc tey képp ku ñëw si këru diine di nga am fierté ni kat vraiment euh, am nañ de un président boo xamante ni jox na place ak gëdd euh, les familles religieuse donc nous euh, ñu xam Sénégal perte le président de la République président Macky Sall perte ngi jaale di euh,